li ko sabab mooy euh, parce que élection yi li ñu jot a gis xel daloon parce que ak élection yi bari na coow te leader yi ñu ngi ñew di ñu setti mais lu ñu wax rek jàpp leen bu dé 100% 50% pour yi ci dëgg te comme mouvement bi da fay a juddu nek international ñu am ay nit yo xam ne dañu doon jappalé fu ne. di ñu jàppale te ñu ay politiciens bi ñu waxtaanee ak ñoom ak situation dëkk bi nu mu demee ñu ne nañu neutre wante nag am nañ nag possibilité tamit pour xool na la ñuy def ñun ant ñi nga xam ne ñoo nekk ci département de Pikine bi xool na la ñuy def pour soutenir suñu leader bi fi nekk mais nañu jàpp ne vision du Sénégal international demul ci élection yi dañuy neutre te nañu ànd ak dal te demee ci xel ndax li ma wax sànq laa lay wax rek amul benn leader buy xeexloo doomam

nga xam ne ay àll rek moo fa nekk pour sa nit day yomb pour rey fa nit day yomb moom Macky Sall moo gënoon a xam ne ba mu ko fiy def waroon na sóoraale que ni ay nit a ngi dëkk ci même secteur waroon na leen nag indil ay ay ay sécurité boo xam ne ëllëg dinañ leen mën a sécuriser mais defuñu ko. ñu am daal ay citoyen leen nag nañ dem votel ku leen neex mais en tant que wàcc ci terrain bi di def ay visite de proximité wala meeting defuñu ko.